Ngor Maar. waaw dëkk Loulibintigny wa li ñuy ñaxtu fi mooy li du ben yon la fi am du ñetti yon du ñeenti yon choc chaque jour day am choc bo xamane fi bu ñu dañuy jom ñun ñëpp te oto yi lu ñuy daw fii mooy jaaduwul doo daan waaw bu dee fukki nit sax teewu ya nga ngi euh autorité yi ñëw nañ fi waaw homme de tenue yi ñëw nañ fi ñu négocier ak ñom li ñu def nii gënaluñu mais dañoo ñak pexé xam nga boo demee booy def loo xamante da nga da nga ñàkk pexe. du lu la gënal. choc bi benn xale moo doon jéggi. oto yenn ko. bu jigéen mu ngi dëkk fële Luuli Mbaa Fay mais ñun ñëpp benn la élève yóbbu nañ ko hôpital ambulance moo ko fi jël xamuñu fu mu toll fu mu toll nii xamuñu si lu mu ne te loolu fii ñu nekk nekk fi avant quinze jours fii ma lay wax ak yow avant lii 15 jour fii ñaari choc am nañ fi miir bii ngay gis nii oto moo doon moytu moromam soobu ci biir te lu muy daw fekk na élèves yaa ngi def examen saaraan ba dóor miir bi mbëkk mu daanu ñu nekk ci biir kër gi dañoo daw tiit yuuxu ñëpp ñëw fi doo daan lañ fi soxla loolu wax nañ ko fi lu tolloog ñetti at ñoo ngi ko fiy wax chaque jour chaque jour waaw dama ko bëgg a gàttal rek dama ko bëgg a gàttal parce que am na loo xam ne wax lu am fu la moo gën nga wax wax ju bari te amul njëriñ yaa ngi dégg boo gisee ci suba ba léegi kenn ndekkiwu fi ñun ñëpp ci kër yi lañ dawee ñun ñëpp bi ñu dawee ba ñëw fii kenn àndut ak sa sago li ñu def nii du lu ñu neex du lu ñu neex mais buñ ñu buggee di nax toujours toujours toujours ba ñu dem ba def lii du force moo koy defar du du ñàkk force moo koy defar dañuy xalaat ne doomi aadama doomi aadama comme comme yow nga may ko jàmm gis nga nit ko boo ko jiitee xamal ne njoboot bi ma jiite maa yore kaaraangeem yaa ngi dégg comme yaa yore kaaraangeem yow si comme comme yaa yore kaaraange may ma tuuti may ma tuuti comme yaa yore kaaraangeem yow si jëmu bopp yaakaarul kenn bu dul yow dinaaw yàlla bu la waxee defal ko lu mu lu mu lu mu la wax parce que bu ci mënoon dara du la ko wax. yaa ngi dégg bu ci manoon dara du la ko lii ñuy jooytu nii yàgg na fi chaque jour nga gis fi soq boo xamoon ne da ngay waaru. léegi bu ñu fa deful doodaan noonu la def. bu ñu fa deful doodaan mooy lan. ci lii la ñuy dëkk ci lii ñoom ci lii la ñuy dëkk ak ñoom parce que doodaan moo ñu arrangé doodaan ñu moo na arrangé. waaw buñ fi deful doodaan ñu toj tali bi. waaw buñ fi deful doodaan dañuy toj tali bi parce que lii nii cinq ans ñoo ngi koy wax. yaa ngi lii dafa yenul maanaam tali bu toll nii yow dëkk bu toll nii yow chaque jour oto buy ñëw di raatale di dem xamoo teggi tànk xamoo dara chaque jour ngay daw di dem sa yoon xale boo fekkee mbëkk koo dem jàll sa yoon dañoo gis oto bi dañ koy kan man Ousmane.